90 minutes euh, bariwul ah ci noonu laay euh, tourné ci sama copain Kébé di ko bëggee di ko ziar baax a baax mais Kébé gis nga ko ah Cheikh wax na ko suñu ñetti match yi nga xam ne moom lañ football ba qualifié huitième de finale. il faut que ñu am un mental fort. il faut ñu am mental fort ba pare am personnalité sur le terrain ba pare combatif sur tous les plans ba pare tamit vigilant man match su bi daal je pense que noonu laa gis ñu ko gagné parce que tamit soo tollee benn benn niveau bi ñu naan Sénégal Sénégal moom moo nekk favori ak joueurs yi nga xamante ni am nañ ko aussi ñuy gis ngeen ni def yenn prestation yi boobu day day dañuy wax ni day am une anguille sous roche te équipe bi mën na ko je pense que suñu defee loolu am personnalité sur le terrain Ouganda duñu duñu mën a jaaxal daal. Euh, dégg nga ko aaw euh, sunu match yi ñetti match yi ñu joué ko ba qualifié huitième de finale contre Ouganda. donc Papis remarque ma def ci CAN année yu mujj yi les favoris ne gagnent à chaque fois des équipes des outsiders ñoo gagné compétition bi ce qui montre que le talent seulement ne pas quoi donc Coupe d'Afrique dafa laaj yeneen affaire yoo xam ne da ciy yokk yu bokk rek talent kese quoi talent bi day ñëw mais engagement détermination aussi day ñëw li Sénégalais di wax dem ba jeex quoi donc pour nga mën a gagné compétition bi il faut nga nangu loolu noonu am engagement nangoo dem ba jeex quoi donc aujourd'hui tey ñëpp def nañu favori dès le départ jusqu'à présent moo tax défaite bi am contre pour man défaite bu ñëw au bon moment la quoi c'est que imagine tey bu ñu demoon ba toll ci fii nii ci ci dóor mu toog ñu soog a am défaite boobu noonu donc du ñu permettre ñu tardivement kon la ñuy jàngat suñuy faay quoi mais heureusement am nañ défaite bi au bon moment permettre nañu ñu revoir les choses mën a rectifier lu bari mën a xam donc ne gars yi mën a gën a conscient que ni talent bi donc suffit suffirul pour gagner compétition bi quoi mais je crois que Ouganda bon tirage bu baax la si ñun par rapport ak d'autres d'autres équipes quoi c'est jàpp naa ne peut-être outsider lañ na ñoom atteindre nañ seen objectif ba pare bokku ñoon ci ci favori donc ñoom ñoo ñëwoon uniquement pour passer pour jéem a franchir premier tour bi donc def nañ ko mais aussi tamit beneen envie day judduwaat si ñoom quoi puisque bon Sénégal aussi c'est l'équipe à battre donc il faut se concentrer pendant quatre-vingt-quinze minutes voire cent vingt mooy li ma wax barki dem rek premier objectif mooy ne pas encaisser bu ñu encaissé benn bii dugal benn bii rek dañuy gañe donc premier objectif mooy concentration bañ a bi et puis yi ñu am ñu teel ko dugal. mettre l'équipe à l'abri bañ a permettre aussi Ougandais yi ñuy gagner en confiance parce que temps bi lu muy gën dem ñoom ñu gën a gën en confiance ah il faut ñu éviter loolu noonu mais cela cela ne veut pas dire que dañu war mélanger précipitation ak ak kii ak vitesse il faut ñu teey liggéey bii bu ñëwee ba 80e minute 89 minutes baax na l'essentiel c'est de gagner donc seule la victoire est belle quoi. Toumani ci moom laay ñëw gars yi bëri ah Toumani nee nañ yoon wi rëddal nañ ko pour Sénégal ah nee nañ yomb na ndax Ouganda bi ñu am huitième de finale. waaw di la wax ne rek kaan bi aussi bii dafa am niveau dafa am niveau par rapport ak kan yi fi jàll parce que boo xoolee comme ni mu ko waxee rek euh, favori yëpp dañu gagné mais bi ñuy gagné aussi difficilement lañ gañee par rapport ak Sénégal bu xew premier match am. ak deuxième match am bokkul visage yi ñu wane bokkul ba ci ba ci troisième match bi heureusement bi ñu gagné 3-0 xam nga euh, attaquant yi retrouvé waat seen confiance euh, boo xoolee groupe bi aussi y a la qualité qualité am na ci groupe bi boo xoolee sur les 23 les vingt 21 yi utilisé na leen kon déjà am na am na ambiance peut-être ñaar ñoo ñëwagul muy troisième gardien bi Abdoulaye Diallo ak Pa Abou Cissé ñoom ñoo ñamagul quoi ñu si des ñëpp xam nañ leen peut-être beneen bi ma ciy dolli rek mooy que euh, élimination directe lañ nekk. c'est gagner ou rentrer il faut que nag ñu euh, yokkaat détermination bi defaraat mental yi parce que euh, Coupe d'Afrique bi boo ko ak comme ay Ligue de champions Coupe d'Europe du ta talent bi ki sa doyul mais il faut nga am mental bu baax am détermination comme algérien ni ñi gagné man pour man euh, match boobu match référence la dañ ci war a tirer des enseignements xam li ñuy xam nañ li tax ñu perte ko comme ni ko kale du waxee léegi dañuy dañuy dañuy yëkkatiwaat niveau bi defaraat mental yi xam nga équipe bi ñëwaat quoi. léegi Pape Daly euh, dégg nga ko ah, intervention gars yi euh, Sénégal Ouganda gars yi bëri nee nañ euh, yoon wi ñu rëddal Sénégal leer. waaw xam nga sénégalais yi moom en général dañuy dañuy rëddal seen bopp yoon ñoom fi mu ni jël nañ coupe bi te demaguñ ci ci ci kaan bi jeexagul mais loolu waxi supporter rek mais boo xoolee Sénégal lu muy fubalee ak parcours bi. ak équipe yi dese boo xoolee da ngay xool ne 50 50 la ñu ñooy favori ci këyit yi mais nekk ñu favori ci kaan bi ndax kaan boo gisee mënuñu wax ne kaanu naari la naari ñooñu ñooñu ñooñu ëpp doole ci kaan bi ndax bu ñu jógee ci Uganda dañuy demaat ci ci naari te boo xoolee naari ni ñuy fubalee noonu ñuy fubalee kaan kaan da ngay am caay-caay daa am noo fubalee boo nee ba éliminatoire tam nga am noo fubalee mais Sénégal boo xoolee ñoom dañuy favoriser ne ñoom mën ci équipe yi mais boo xoolee ci këyit yi la mais wane guñ ko ci terrain bi li ñuy wax naa rey jéggi la mun na ñu wane ko foofu mais premier défaite bi buñ fi ñu ko jëlee moo baax ndax booy xool kaan bi sa match yi njëkk yi da nga koy fubal ak ak ak mais boo xasee ba génn nag daa am beneen arñi boo indi arñi ba ngay indi mooy da ngay indi détermination boo indee deuxième mention indi si moo ngi indi football ñaar yooyu boo ko boolee mën ngaa am dara mais il faut tam ñu yokk lu ñu doon football daal bu ñu ko boolee daal ak physique ak physique bi ndax boo xoolee ñun suñu physique mën naa na doy na wala doyut mën naa ne tamit jour lu bari mais boo xoolee ñun suñu physique xaw naa des tuuti mais xam naa dinañ ci liggéeyaa bu ñu ci liggéeyaatee daal mën nañoo am dara si kaan bi daal euh, ñu qualifié huitième de finale Sénégal war a jouer ak Ouganda gars yi nee nañ match bi yomb na euh, ñii nee nañ euh, buñ ko gañee mën nañoo sori parce que programme match bi day yomb quoi ndax parce que instant Ouganda ñoom xam naa ne xawal ñu woon nekk si fii quoi comme que génn ñañ ñoom motivation bi ñu am loolu soo ko ça veut dire quoi match bi kon du yomb si ñun ndax ñoom amul daaw lañu si perte match bu tollee mu fii moom ne pour nga gagné ko engagement rek ndax Afrique lañ nekk Afrique match pour nga gagné ko xoolal comme Algérie ni mu gagné noonu la rek pour nga pour nga yegg final foog nga am engagement def fulla ak fayda dal seen kaw gagné dem ñibbi. ba jëm de final benn bii benn bii lañ soxla biñ ko gañ dugalee géré si ginnaaw mu jeex. Sénégalais yi xamee ni ñoom moomuñu coupe bi te joueurs yi fa nekk jënduñu leen juruñu leen ñu changé waat beneen visage te man dama leen équipe nationale bu waatee dina changé beneen visage comme pas mal de gens l'avaient l'avaient avancé waxoon nañu gars yi comme lii défaite la gars yi buñ dina dinañ dinañ xoolewaat xam ni ñoom mënuñu yeneen équipe te buñ dikkaatee noonu lañ def sous la direction de Idrissa Gana Gueye ñu taxaw monopoliser militaire bi boo xoolee si bi euh, li guerre guerre psychologique bi coach algérien yi waxoon ne tactique Aliou Cissé xam naa ko dina ko contrecarrer dinaa ko gañ moom la wax contrecarrer ñu gañ ñu si bi moom la wax man suivre naa ko ci net bi coach tanzanien bi ne Aliou Cissé dinaa ko gañ xam naa tactique am Kenya yi gëmoon lool boo ko defee boo xoolee première minute ba cinquième minute Kenya yi dañoo ñëw ne bërët wàcc suñ kaw mais Sénégalais par deux ñu ñàkk duel yi ñu replier wu seen zone ci la Sénégal yi commencé seen football gañ leen. fii nii euh, ci euh, waa jàpp joxe ah gars yi gis nga ko euh, caayan bu neex la ñuy def gars yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di waxtaan nekk ay joueurs yoo xam ne kenn dootu leen présenté si dëkk bi ñu doon waxtaanee CAN temps réglementaire.